tudd Amadou Mokhtar Seye euh, du président chambre de métier de Thiès sama fonction nag nekk maroquinerie maa ngi liggéey ci wàllu cuir sepo mais nag euh, may président chambre de métier en tant que artisan waaw tey nag artisan yi ah, maanaam assemblée général bi li ëpp ci assemblée général bi muy 18 yi nga xam ni ñoom ñoo ma investiroon vraiment dëggal nañu seen bopp ba delloowaat ma chambre bi pour ma war ko waat ci ñetti at yi di ñëw. Mm-hmm. waaw benn kandidaa moo nekkoon ci sama kanam benn candidat waaw moom moo nekkoon ci sama kanam mm, yàlla def na nag moom laa xajool élection bi. Mm-hmm. alors vraiment ci kanamu bi en en mm-hmm. yàlla def na may nañu ndam ba sant yàlla parce que chambre de métier bi dafa nekk chambre boo xam ni euh, dafa nekk. Euh, modèle actuellement ci Sénégal nekk chambre boo xam ni moom dafa nekk leader ci orienté ak traduire vraiment réew chef de l'État ci wàllu développement ak euh, économie ak social donc moo tax chambre de métier bi amoon na sumb yu mag yi nga xam ni ci fii ak 2022 moom la ñu sumboon loolu rek la ñuy continuer te mooy former ndaw mi renforcer seen capacité ba ñu mën ba ñu mën a nekk nit ñu opérationnel ñu mën a jëriñ seen bopp mën a jariñ seen réew te mooy fexe leen ba ñu mën a am seen métier maanaam ñu réglementer seen xam-xam ci wàllu métier mi en même temps fexe leen a équiper ba ñu am ay jumtuwaay yu ñu mën a liggéeyee mais fexe leen taxawu ci seen daluwaay ba ñu ba fu ñu nekk ñu mën leen fa fekk ak seen wàllu liggéey ci seen wàllu liggéey loolu nag chambre de bu ko sumbee alors pour fii ak 2022 mu sumbaat fi beneen programme jot nañ ci def ay jéego mais ñu sumbaat beneen programme boo xam ne les petits métiers dañ leen bëgg a yëkkatiwaat loolu nag euh, mën nañ ci citer lu jëm ci wàllu réparation portable mais lu jëm ci wàllu vannerie lu jëm ci énergie renouvelable lu jëm ci céréale local transformation céréale local yooyu ay ay mbir la yoo xam ni dañu ko war a dim parce que da ci da di filière dafa nekk ci benn filière bi nga xam c'est des filières porteuses ñooñu bu ñu liggéeyee ndaw ñi daañu am xëy mën nañu jaar ci ñoom ndaw ñu am xëy parce que dinañu am client pour liggéey te aussi bu dee consommation bi tam céréale locale bi di nit ñi dañ koy consommer waaw kon loolu dina gaaw trop lu jëm ci wàllu poterie bi aussi war nañ ci liggéey mais lu jëm ci wàllu aussi jàppale euh, filière métal ak bois tam aussi pour ñu jëm ci doxaat dolliwaat ci ay jéego waaw lu jëm ci mécanique automobile lu jëm si coût textile habillement yooyu yëpp ay xalaat la yi nga xam ni fos nañu yéene ci ñetti at yi ñëw ñu yëkkati ci ay taxawaay yu am solo mais ñu fàtte toujours ni artisan bi nga xam ni ñoo ne ci biir ville yi ñoo ñooñu danañ leen jàppale mais ñi nekk ci ci biir àll bi tam aussi danañ leen fekk fa ñu nekk te ñu dañu soor ni lañu leen di jàppale lu ci ëpp mooy mën na law ba parce que buñ demee ci village yi dinañu fexe ba jàppale leen ci lu jëm ci wàllu presse à l'huile nga xam ni lu jëm ci gerte gi ku dinañu am solution yoo xam buñ ko bayee ba pare sax dinañ ko mën a transformer seen bopp donc respecter aussi normes yi ba nga xam ni presse yooyu ay presse solaire la ñuy doon mais dañuy ànd ak normes yi ba nga xam ni encyphalotoxine bi ñuy wax sax loolu dañ koy lakk ba nga xam ni diwlin bi du mën a lor kenn dinañ ko loolu xalaat nañ ko ci diwlin bi ñu ngi koy xalaat ci kafe bi àggagul mais diwlin bi moom daanaka pare nañ ko ñu ngi xalaat aussi ci lu jëm ci wàllu euh, lu jëm ci ay village hub ay green green village village loolu relation bi ñu am ak coopération allemande moo ñuy permettre yenn village yi ñu fexe ba seen nit toog fa seen i ndaw toog fa ñu ni il faut que ñu jéem a fexe ba pression yi ñuy def ak fuur fuur yi nga xam ni dañ ko war a def muy nekk ay boulangeries yu ndaw ay mini boulangeries yoo xam ni lépp dootul jaar ci électricité bi ñu xam mais ci électricité bi jóge ci jant bi la war a jaar loolu itam ñu bëgg ko dugal ci village yi nga xam ni dañuy compétir parce que ñaari village lañu ciblé mais ñu ngi seet yeneen village yu bari xamuñu ban département lay doon xamuñu ban commune lay doon mais fos nañ yéene def tout ba ñaari village dinañ leen équiper ci four équiper leen ci chambre froide boo xam bi c'est l'artisanal toujours ak lu jëm ci wàllu euh, énergie solaire nga xam ni dëkk ba ci seen bopp dinañ mën a denc seen yàpp wala ñu denc seen jën wala ñu denc loo xam ni bu ñu ko dencee mu yàqu te frigo yi duñ ko àttan parce que dëkk ba amul courant wala yu demee noonu ñu fexe ba ñi ko gañ dëkk bi ko gañe tam aussi ñu jéem fa implanté mm-hmm. fexe fa créé itam ay boutique multi service yoo xam ni dina leen boolewaat ci biir dëkk bi waaw loolu mooy tax ñoom ñu mën a toog ci seen dëkk. bon ci formation petit métier bi jot nañu songu lu jëm ci réparation portable bon boo xoolee si biti kiosque yi nekk ci biti ñoom lañ ko war a jox mais songu nañu itam ci wàllu insertion lu jëm ci cuir sa peau fas nañ yéene ñaar fukki ndaw dinañ leen jàppale ba équiper leen jox leen ay atelier ba ñu mën a toog foofu liggéey ci wàllu domaine cordonnerie ak maroquinerie am na yeneen domaine yu lu jëm ci wàllu réparation portable comme ni ma ko waxoon sànq jotoon nañ ci def jéego mais sumbaat nañu ñoom it lu mat 40 ci ñoom ñu équipe leen comme noonu sumbaat nañu aussi fas yéene lu jëm ci wàllu céréale locale bi ñu réhabilité agale réhabilitation centre incubation ba nga xam ni dina mën a accueillir ndaw ñi pour ñoom itam ñu mën a toog foofu di fa liggéey ku fi jaar nag boo fi liggéeyee tuuti nga daal di dem comme ça ñeneen ñëw te loolu tam aussi dañ ko def ak suñuy relation par plus particulièrement par kii coopération décentralisée l'accord de la paix américaine ñoom ñoo sumboon loolu mais tey avec en suñu relation ak COSEC conseil sénégalais des chercheurs ñoom war nañu ànd ak ñun ba ñu mën a yeesalaat centre bi ci kàttanu yàlla mm-hmm. incha allah mbokki artisan yi dama leen di damay jeexale sama message ci delloo leen victoire bi santaat leen si bu baax wax ni tam ay nit ñu baax lañu ñu ma ñu ma doyloo lañu mais man it maa ngi fos yéene di nekk seen wet tant que ñu may soxla may jéem sama kemtalaal kàttan pour jéem a nekk ci seen bëgg-bëgg te aussi tam maa ngi gërëm tam aussi ñi nga xam ne di 18 ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw ànd ak man delloowaat ma ci sama poste ñooñu tam maa ngi leen di félicité bu baax di gërëm sama ay famille jiital ci sama papa ak sama yaay mi nga xam ne ñoom nekkuñu bi mais lu ma nar di ko def wala ma sumb ko dinaa dem ba fañ tëdd te loolu mosuma ko réccu te yaakaar naa du ma ko mos a réccu ma te bu ma mosoon def ufin jëm ci ñoom rek loolu may jéem du ma ko mën a am mais ñoom rassuré woon nañ ma ci seen dund kon nag may sant yàlla bu baax a baax a baax baax sant kilifa yi sant administration bi sant tutelle ndax ministre bi tam aussi ñu ngi koy delluwaat njukkal bu baax ndax moom it lii ñu def yëpp ak di ko sumb mënuñu ko def ak benn partenaire te ñoom joxewuñ seen aval kon nag dañ leen di remercier ñoom itam bu baax a baax la tutelle le ministre de l' mais en même temps aussi directeur de l' artisanat bi nga xam moo nekk suñu diggante ak ministre bi mais gërëm gouverneur de la région bu baax suñu gouverneur ñu ngi koy gërëm di ko sant waaw alhamdulilahi rabbil